sama maqiya ah, ah, maanaam ah, bu dee ci ñu koy askane sama maqiya lañ koy wax maanaam muy lu ñu askane jëme ci turu samaq maq abu samaq maq benn waay la bu amoon ku xoram woon ku bare ay kaf dégg nga tax na ku siiw la woon adib bu bari ay kaf la woon ku siiw ku jëkk ku yàgg ibnu wannaan nag moom tàng bi muy e, taalif téere bi moo tudd ni baayam ni ba muy tagg baayam banaan moo tax sunu buuru réew mi daan ko ni ni ko yow daal yaay abu samaq-maq rek foofu la samaq-maq ji jóge de ki ko taalif moom tudduwul samaq-maq baayam tudduwul samaq-maq baayam dafa doonoon adib boo xam ni eh, maanaam benn buur dana ko wax ci yax bi eh, looloo tax mu ni baayam buur ba ni ko yow de waaye diw daal yaag sama max day yow daal yaa di abu samaq max doomu kooku nag moom mooy ibnu wannaan moo taarif téere bi nag hmm, dana tudd loolu ci biir ci kaw loolu la turu samaq maq yi foofu la jóge ba xasiida bi ñu di ko wax samaq maq ya nun nag nuy wax faf samaq maq nun yem ci samaq maq ya maanaa li mu ci tudd baat bu xarib boobu ci luxa ndax samaq maq baat la boo xam ne ci luxa dafa barewul bu muy nirool baat ñoom nag xasiida bu amee baatu xarib danañu ko ko tudde comme boo demee ci Mauritanie yéen yi xasiida daaliya bii nuy wax humma diya lañu ko tudde ndax li mu ni asta al ashiril hummadi baatu hummat dafa barewul lu ñu ko jëfandikoo moo tax ñu faf di ko wax xasida ba hummadiya moo tax bii tam ñu di ko wax samaq maqiya nun nag nooy wax samaq maq rek mu ni mahlan ala rislika xaadi lay nuqii wala tukallifha bi ma lam tutiq mahlan na nga teeylu masdarum fiil bu ñu xadaf la imhal mahlan imhal mahlan masdar nag dana remplacer fi'l xam ngeen ni nga defal ndànk ala rislika nekkal ci sa teey kan yow man haadi lay nuqi yow mii di jiital naaqa yi lay waxal nekkal ci sa teey defal ndànk wala tukallifha bul teg naaqa yile gëleem yile Ah, bi maa lam tutiq ci loo xam ne mënu ko gis nga fa mu jaare kinaayaam di déew ca àll ba li mu bëgg a wax nangu wu jaar amul soxla ci gëléem yi bañul ku leen lor jigéen ñi muy xasal ci ñoom ñu war ji gëléem yi te mu nar wax seeni taar ak seeni def ñoom moo tax mu naan defal ndànk gëléem yi bul teg gëléem yi lu ñu mënul waaye dana mës a agsi ah, waxal fa taalamaa kallaftaha wa suqtaha sawqa fatan min xaaliha lam yushfiqi yow taalamaa kallaftaha yàgg na nga teggaleem yi was lu ñu mënul bi maa lam tot lam tote wa suqtaha yàgg nga koy jiital itam sawqal fata comme jiitalug waajoo xam ni sawqa fatan jiitalug ak waay joj lam yushfiq yëramut min xaaliha ci xaalu naq yile yërëmul naaqa yi waaye li nu waxoon rek amul soxla ci naaqa yi ñi ci ñi ci kaw la am soxla walam tasal tarmi biha yadu nawa bi kulli fajjin wa falaatin samlaqi nee na eh, walam tasal dañu tarmi di sànni yadu nawa loxol taqaliko al buudu wal furqatu mooy nawa maanaa tukki bi rek nee na loxol nawaa loxol tukki bi musta dañ eh, di ko sànni bi kulli fajjin ci bépp mbedd mooy yoon wu yaatu wu jëm fu sori wa falaatin ak bépp àll samlaqin bu di aji tàlli bu mutmainnatun mustawiyatun samlaqu al ardul mutmainna al mustawiya maanaam suuf bu xur wu tàlli wuy dem na mutmainna maanaa xur la mutmainna bu ñu ko waxee ci suuf mooy xur al mustawiyatu wu tàlli maase ca biir yooyu mën na daj place mën nay xur te tàlli ca biir xur wa ah, wa matala tazrau kulla fadfadi azruha wa kulla qaain qariqi wa kulla abtaxa wa ajraa wa jizcin wa sarimatin wa kulla abraqi ah, wa matalat musta gàttañlu moom naaqa googu tazrau di xasab ana ni muy jéggee suuf si lay mel ni kuy na ak ay xasab kulla fatfadin bépp àllu dégg nga euh, bu ñagas kulla fatfadin wal wal makaanul xaliir mooy fatfat al fatfadu al falaatu wal makaanul xaliiru awil murtafiu dégg nga kulla fatfadi Eh, walam tazal musta dañ tadrau di natt azruha ay xasabi naaq gi mooy faayilu tadrau muy natt kulla fadfadin bépp àll bu ñagas boobu wa kulla qaain ak bépp pàkk xariqin bu di aji maase mooy almustawi ba tey wa kulla ab taxa ak bépp ab tax ab tax ak batxaaw day doon xur woo xam ni dafay am masilun waasiun wàllukaayu ndox bu yaatu su ko defee beñ ba di jaxasoo ak xeer yu sew ya loolu moo doon ab tax ak batxa ci la xuru màkka wo boo wuttur la am batxa mooy xuru màkka bayaal bu yaabu nekk ci côté janubu kaaba ga janubu janubu alxarbi wa kulla abtaxa wa ajraa wa ajraa ak jarca u itam moo di maanaa ramlul mustawiyatun wal ah wal jësu moo di mun xat mooy bambu xur fi xur yam mooy jës jësul waadi maanaam peggam ah, jar'a u mooy ramlatun mustawiyatun laa tumbitu shay'an suufu beeñ bu maase bu dul saxal dara jar'a wa sarimatin moo di suuf bu beru beeñ boo xam ne tàqalikoo naag dafa beru daal tàqalikoo naag xeer ya wa kulla abraq ak bépp abraq moo di ba tey al ardu al xalidatu zaatu al xijaarati wa tiin <laughs> bismillah akbar majaahilun taxaaru fiihinna alqataa laa dimnatun laa rasmu daarin qad baqi loolu le place yoonu wax place yooyu nu wax majaahilun ay réerukaay lañu maanaam place yoo xam ne nit mën na fa réeru taxaaru yoo xam ne dana gëlëm alqataa picc xataa li mu xam-xam àll dana gëlëm fiihinna ci majaahil yooyu laa dimnatun du jégee ni dimna di fa nekk ni ki ay sëna ki ay gent yooyu laaras mu daarin du jéggee ni gentu kër goo xam ne xat baqiya des na nee na àllum majaahila yoo xam ni eh, nee na amul dimna bu fa ne amul gentu kër bu fay des bu ñu mën a xam laysa biha gayru sawaafi walxawaaji bilxaraajiji wa kulli zixliqi laysa bihaa nekkut ci àll yooyu xayru sawaafi lu dul ngelaw ya di way jëri suuf sa riixun tasfi turaaba ay taxmiluhu wa tadruuhu dégg nga wal xawaasibi xawaasib jam xaasib mooy ngelaw bu tar aw yursil ali xaasiban xaasiban min a riix ah déedéet aasi kooku fële la xaasib mooy ngelaw luy sànni ay xasba ngelaw loo xam ne bareem dooleem tax na jëmbraayi suuf yi dana ko di sànni kooku la ñu xaasib min xasaba rama bil xasba dégg nga wal xawaasibi gayra ah, sawaafi wal xawaasibi alxaraajiiji yadi aji tar seddaay jam xurjuujin moo di sud albaridatu shadidatu lbard wa kulli zixliq ak bépp ngelaw bu tar riix alshadid shadidatu walmarqu walafaaru walcidaahu walbashaamu walaslu wa nabtu lxarbaqi walrimsi walxullati ah, walxullati dàmm laa walxullati walsaadaani walsagri wa charyin wa sanan wa samsak yooyu moom ay ay yëpp ay gàncax la almarq ak afaar gàncax la yoo xam ni garab la yoo xam ni dana yomb tàkkal safara dégg nga euh, shariul war yi la amoon na ko xam nga tudd na ko ci wannaaru fi l asjaari lakin ma biha ka afaariha wal marxi min mustamjidi marx ak afaar garab lañu idaah itam garab lañu garab yooyu di am dég mooy dég garabu taxas bashaam itam garab la goo xam ni euh, danañ coode dagg ay soccum albasham sajarun tayibu raihati yu dégg nga yutaxallalu bi ah dana jëwti sooji wal bashaam wal asl garab gu dëgër la alquran tudd na ko wal aslin wa cheyin min sidrin qalil shajarun ka tarfa illa annahu azamu minha wa xasabuhu sulbun garab gu dëgëri bant la moom wa nabtul xarbaqi ak gàncaxu xarbaq xarbaq gàncax la moom itam garab la daal nabaatun waraquhu ka lisaanil xamal wa rims ba tey gàncax la rims hmm. wa hmm. wa rimsu mar al ibili gàncax la daal eh, mooy ñax la mooy li gëléem yi lekk ci ñax mu wex mi caf ko min alhamd xamd mooy ñax mu am garab yi am caf ka loolu la ñuy wax xamd wa rims walxullati xallatu ma fi xalaawatu nabaat gàncax yoo xam ni cafkaam dafay am cafka neex mooy xalla kon na nga xam ni kon rims ak xalla la sajaran bi ay nii du jéggee ni danga naan mooy ñax sàngam déedéet ñax yi nga xam ne du wex ñafkaam day neex kon loolu jins la naka ko rims itam nag noonu wa rims wal xalla wa saadaan saadaan nag mu nabtun la bi aynihi wala fii daañu ko firee xom-xom waaye nabtun lahu shawkun li tax ñu ne xom-xom gàncax la suy amee ay dik xom-xom xamul la xaw ma da ngeen ko xamam déet ci joor la daan am nab gàncax gu tuuti mel ni nga bu loxo di nekk fi suuf te day am dég yu sew yu gudd yu yomba dammatoo yu sew te gàncax gu tuut lay doon gëleem nag dana ko bëgg a lekk torop ah, saadaan والصرغ وسعدان والثغر والشري شري mooy xanzal wasanan sana mooy laydur samsaq beneen garab la moom itam boo xam ne mooy al yasamin kooku ci sardeñ yi lay ne borom fleur yu rafet yi lay doon akan wa usharin wa nashamin wa isxili maa sumaamin wa bahaarin muniqi o oh, dégg nga looloo tam ci gàncax yi la ushar am nañu ni ci wolof yi di ko firee faaftan wallahu aalam wa nacham garab la gu ñuy yette ay fet wa isxil dañu cay dagg ay socc imul qays tudd na ko masaa yi ko isxil ma a sumaam sumaam ñax gu nooy la arab yi dañ ko xadde néeg ak yooyu wa bahaarin ak bahaar gàncax gu am fleur yu jaune yu rafet moo ni xin gu rafet melo wal qishati wa siidi sabanta wal qataa wa jawraqi wal layli wal nahaari wal ri'aali wal haythami ma ikrimatin wa xirniqi nee na wa simci ak doomu bukki ak til danañu ni huwa asmau min simci arab dana ni fulaanun asmau min sim'in moo gën a neexi nopp sim mooy doomu tillëg bukki wala du zibi min a dabo maanaa till mooy e, baay bi dabo bukki mooy yaay ja suñu ne wala duha dañu naan huwa wala duha wala duhoo min fulaanata arab dafa aadawoo bu dee wax doom ak ka ko jur mu ni waladuhu min fulaanata su ko defee kon zibu mooy baay bi dabu bukki mooy yaay ji doom ji nag mooy sim moo gën a met ak neexi nopp lool te te njaxlaf wal yaqub ak yaqub yaqub moo di zakarul xajal xajal nag wala fi dañ ko wax ganaaru àll maanaam day xaw a mel ni ganaar tey dëkk ci àll bi rab wu ñuy rëbb di ko jàpp la wal qishati mooy xirda golo wa siidi ak till sabantaagu met gu wex wal xataa piccu xataa di xam ngeen ko wal xataa wa jawraqin moo di zakarun naam baabu góor naam jawraq mooy zakarun naam wa leylu wa nahaaru wallaylu euh, wallaylu mooy farqul karawaan picc la karawaan tur la ci picc ca la waxu woykat ba di atriq kara inna naamata fi lqura foofa dafa ko faa wàññi da ko faa tarxiim ci lu dul nida karawaan picc la wallayl mooy farqul karawaan wa nahaaru farqul xubaara hmm? waaw wallayli dafay lim rabi ah, yooyu la yëpp ay xayawaan la wallayli moo doon guddi xam nga wallaylu maanaam ñu ngi ci jublu farxul xarawa ah, xaya karawaat cuuju karawaat naxaaru ñu jublu ci farxul ah, xubaara ñoom lay wolof di wax gëmbent wal haysami ak haysam moo di saqr saqr ñu di ko wax xoob ajdal ma ikrimatin ànd ak ikrima mooy unsal xamaam petax mu jigéen wa xirniq mooy doomu lëg xirniq turu jigéen la nag uxtu tarafata bnul abd ba tey wa lam tasal taqtau jilbaaba duja bi jalamil yadi wa sayfil unuq wa lam tasal dañul gëréem yooyu ñu nga continuer toujours taqtau ñuy dagg jilbaaba duja jàllaa bépp lëndam yi maanaam dañoo dox guddi la bëgg a wax kinaaya guddi gu lëndam la ñuy dox su ko defee kenn du leen seen kon dafa mel ni mbubb la mu ñu leen yiir moom guddi gi ma nee na nag nee na ñu dañ du ñu dañ di ko dog lu ñu koy doge bi jalamil yeddi ci siso bi nga xam ni mooy seen tànki kanam tànki kanam ni muy rawante nee day bu dee dox day niroog sifa sifa siso boobuy dog waaw te dem ak a dikk soo dee dog ak siso du nii lay def nee na bu dee dox itam tànk yi noonu muy jaawantee dafa mel ni sisoo buy xotti mbubbum guddi gi eh, ñoom seen wax yi wa sayfil unuqi ak jees yi loos ja maanaam mu ngi xotti lëndëm gi ci yaar moom naaqa gi tànkam yi ni muy jaawantee dafa mel ni sisoo buy xotti lëndëm gi loos beet ni muy def nii dafa mel ni jees ji koy xar di ko maanaam dafa bëgg naa yàlla ni dañuy fanaane dox ci guddi gu lëndëm dong kat walam tasal taqtau du duja bi jalamil yadi wa sayfil unuq fal idaafatu li tafsir jalam alladi huwa al yaddu jalam danañu waxi jalamaan mooy siso ni ñuy waxee miqraat wala miqraataan léeg-léeg bu ñu xoolee ñaari ŋaam yi ñaari boor yi ñu ni ko jalamaan yi suñu ko seetee ne benn aala la ñu ni jalam rek fa ma staraxat min uboori jaafarin wa min suudin bi saidin salaqi illaa wa fii xadxaadi dami ayniha xaadat wa xaabat bi saraabin mutlaq fa mastaraxat musta noppalu moom naaqa yooyu min ubóori jaafarin ci jàll gu ñuy jàll am mar jaafar turu góor ci arab cosaanam turu dex la woon am mar daal mar nag wolof dañ ko wax dex gu ndaw go wa min suudin musta noppalu ci yéeg ga ñu yéeg ñoom naaqa yi bi saidin ci pàkk zalaqin bu dëgër bu rattax bu bu mën a sa tarxiise musu koo musta jàll euh, benn maru wala mu yéeg benn tàkk illaa xaadat lu dul xuur na xuus na fii xad-xaadi dami ayniha ci ban euh, xad-xaadu xad-xaad mooy suuf bu ban bu tooy ànd ak ndox di rëmbax rëmbax ah yoo xam ne lu ko waral rangooñi seen rangooñ ya illaa wa fii xadxaadi dami illaa xaadat lu dul xuus na fii xadxaadi dami ayniha ci rambaxutu rangooñi seen bët ya seen rangooñ yu bare yi daal maanaam seen rangooñ yu bare ya tooyal na suuf si ba mu nekk xat waxaabat lu dul nga xam ni fàddu na làqu na bi ci njënoox mutbiqin ju di aji ubbu nee na su nekkee ci saïd bi njënoox di sàng ko su dee dox ci fu tooy bi maanaam ci bu dee ubóoru jaafar nag nee na fii xadxaadi dami ayni ka annaha ka annama raqraaquhu baxrun tama wa nuuru nooqu amwaajun alayhi tartaqi wa kullu hawdajin ala aqtaabiha mislu safinin maaxirin aw zawraqi marrat biha huuju riyaahi fahwa fi tafarruqin xiinan wa xiinan taltaqi ka annama raqraaquhu dafa mel ni la mel ni baxrun géej la goo xam ne dafa fengat ca kaw baxrun tama tayaar ka annama raqraaquhu tama wa nuuq naaga yi ni ñuy jaare ci tàkk googu eh, te nga xam ni saraab ba raq-raq lerqat ga saraab njunux lay lerqat lay nirale géej ndox wanoo ko naaga yi dox ci kaw bu boobaa kon a ah, ñoom kon am waajun ay gaal lañu yoo xam ne tartaqi da yéeg alayhi ca eh, géej ga waaw su fekkee njënoox li léegi soppiku na ak géej la kay ah naaga yi dox ci kaw kon ay gaal lañu ñoom wa kullu hawdajin bépp teg pegu jigéen yooyu ala axtaabiha ca kaw bantam ya ñu ko euh, def mislu safinin day mel ni ak gaalu ndox safin nag jamu safinatin comme ay gaal la maaxirin buy xotti géej gay dem aw zawraq wala muy kanoot zawraq mooy gaal yu ndaw yi gaal yu ndaw yi yollooco yu ndaw yi gaal gu ndaw goo xam bu bato bu rëy bi teere ndax bato bu rëy du ak si ba ci tefes gi direct fii nga xam ni mën nga jóge ci teg sa tànk teg fi suuf déedéet loolu gaal gu daaw ko man moo tax bu gaal bato bu mag fa muy costé ay zawraq yi nag ñooy dem di ca yeb di yebbisi di ca yeb ndax fa muy nekk moom ci digg lëg ba lay ban taxaw zawraq mooy wolof nag dañ ko wax kanoot xam naa sax kanoot du waxi wolof xanaa boo tul waxu tubaab loolu marat boo xam ne romb na bihaa ci ñoom dafa mel ni gaal la wala sawraq boo xam ne marrat biha dafa ko rombale da koo dawal xóoju riyaaxi way riddi gelaw ñoo ko dawal kon baa um biha li taadiya marrat biha ay amarraha xóoju riyaaxi way riddi gelaw jam u hawjaa riixun hawjaa maanaam garab guy def fërërërër fahiya moom gaal ya kon fi dañu dañuy nekk ci ak tàqalikoo xiinan tàng waxiinan jamono taltaqi ñuy dajaloo gëleem yët noonu mu di leen nirale ba ñuy dox ci njënoox loolu mu mel na gaal yu nekk ci kaw géej aywa léeg-léeg ngelaw li tasaare leen léeg-léeg mu dajale leen wa kam bi sawti albaxyi suqta suuqaha sawqa almuannifi alladi lam yattaqi wa kam suqta bare na boo jiitalee yow xaadi lay nuq lay waxal de ka mu jëkkoon a wax yow miy jiital naaqa yi le kam suqta bare na loo jiitale dégg nga euh, suuqaha seen peer yi tànk ya bi sawtil baxi ci yaru bew xanaa yaa ngi leen di dàq ak sa yaru bew bi waaye nag pour dafa bëgg jinaa suqta ak suuqa la bëgg a dendale rek kooku dégg nga sawqal mu ànn nga di ko jiital comme jiitalu ku teeya di muannif nag wala donc mu ne aji gaañ njëj waxin sawqal muannifi comme jiitalu ku teeya di ladi ga nga xam ne lam yattaqi wattandikuwul ragalu leen a lor xataa xadat xuusan ijaafan dummara anaaquha tashku tawil al anaqi xataa xadat ba mujj na na moom gëleem yi xuusan ñu di way xóot ay bët maanaam jamu la jamu taksir la mufradan xawsaau ci muannas wala axwas ci ku góor mooy xaairul aynayni wa xaairatul aynayni ngir sonn ak xiif ak om xayawaan bu ne bu xiifee wom bët ya day xóot même nit mais ay diw de bët yaa ngi xóot a xóot ba ah dafa wom aywa kon su ko defee xuus jam u xawsa kon naaga yi dox nañu ba wom ba sonn seen bët yaa ngi xool ijaafan ñu di way làpp way yooy maanaam woma wom daal euh, dummaran ñu di way sew woos mooy wom ba tey anaaquhaa seen loos ya tashkoor ma ngi jàmbat tawil al anaqi maanaa lag mu yàgg mi anaq mooy ak lagg naw un min a sayr tawilal anaq aji guddi lagg dox bu yàgg bi lu tax mu ni seen loos yaa ngi koy jàmbat ishaara la ndax loosu gëléem dafa am maanaa ca dox ba fu gis gëléem gu ñuy dàq muy waax muy lagg bu baax rek nga gis na loosu bay def ah xaw ma mas ngeen ko seetloom de ah, loosu gëléem ni ko yàlla binde mu gudd lonk jëm kaw buy doxit ni jëmm ji mel jëmm jee dafa gudd lonk banku aywa bu dee dox nag pour lu ko difi loos yi mu nga koy difi loos yi toujours dafay nii lay dëkke nii bu gëleem dee dox nii la baat biy def noonu nag looloo tax mu tudd ni loosam ya ma ngi jàmbat dox bu yàgg bi marsuumatal aydi chakat fartal waja lakinaha tashku li gayri mushfiqi nee na naaqa yi ñu ngi nekk marsuum xataa xadat ba ñu xëy kon ah, xuusan mooy xabaru xadat xadat ci bokki eh, kaana la bokk xada zaydun yafalu aywa xataa xadat xuusan xataa xadat marsuumatal aydi da koy nasab di lu lu ñu fàcc ay loxoom tànk yi mooy tànki kanamu lay di lañu koy wax ñoom de comme ni ñuy wax ci nit wala fanaan naan tànki gannaaw ak tànki kanam arabu xamul tànku kanam tànk ak loxo la xam marsumatal aydi maanaam dox bi muy dox ci xeer yi moo ko fàcc muy nàcc chakat jàmbat na fartal waja ëpp tëccu tànk ci xeer yi waja mooy maanaam waja u rijli min kasrati sayri alal xijaara alal mooy waja tëccu tànk ngir dox ci xeer lakinaha waayel naaqa yi teskoo ma ngi jàmbat li xayri musfiqin ci ku dul yërëme ndax xaadi lay nuq daal amul yërmande rek ah. qad dahabat minha almaxaasinu bi idmaari sura bi wa qillati tarafuqi qad dahabat dem na jóge na minha ci gëléem yi almaxaasinu seen rafetaay yowoon dem na ndax bàyyi ma bu rafetee ngir suuram bu wamee daal di ñaaw nit it di qad zahabat minha al ci sababu lan bi idmaani sura ci taqoo gi mu taqoo rañaan dox guddi gune rek wa qillati tarafuqi ak néewu yërma yërëmande di ko yobbalal di xanaa di ko jafeñal di ko sonal tarafuq mooy def ndànk teeylu dara bañ koo lor loolu nag moo néew qillatu bi maana nafi xillatu arab dana ko wax te jubluwu ci néew ñàkk am aslan la ci jublu te annaha lam taku qablu tuxibat min kulli qarwaa raqubin funuqi dawsaratin hawjaa wajnaa ma biha min naqabin wa wa min wajan wa salaqi xataa ka annaha dafa mel ni moom lam taku nekkut woon untuxibat ñu tànneef leen min lu ci jëkk moomu naa yi dafa mel ni ta musuñu leen a tànn min kulli xarwa ci jëpp aji gudd gannaaw raqubin boo xam ni buy am sago bu ñu demee di naan du buux du buuxante ca day tedd nga jikkoom tax na day beru rek ba naaqaya naan ba yeggal ka annaha tarqubul ibila fa tashrabu qablaha raqubin ku di xaarookat du buuxante ci ndox ma daal day nekk ba am fu yaatu rek mu dugg furuqin maanaa fatiyatun bu ndawe toll ci ndaw dawsaratin maanaa daxmatin bu rëy aw jaa maanaa bu gaaw la biha hawajun ka annaha e, majnuna hawaj maanaa bu gaaw daal la ci waj naa bu rëy ay kaabaab loolu belaw doole la maa biha nekku ca woon min naqabin benn Euh, kile benn euh, metti tànk naqab mooy daaba joo xam ne day dox ci euh, dox ba weer tànk yi defi góom di metti wa dégg nga loolu ca la waxu Omar ibn al-Khattab benn waaye dafa dikk ni ko ahmil ni ahmil ni fa inna naaqati naqibat wa dabarat wa dabirat naqibat wa dabirat mu ni ko du dëgg da ngay fen da ngaa bëgg da ngaa bëgg a laaj waaye xam nga sa naag ga dara jotul mu daal di wàññi ko dem sa naagaam mu ngay dem di rajes aqsama billahi abu xafsin umar ma ma massaha min naqabin wala dabar faxfir lahu allahuma in kaana fajar maa biha nekku ca min naqabin benn naqab benn mettitu tànk wa min wajan du jégee ni tëccu tànk ci buy dox ci xeer wajaa moom mooy dafa dox ci xeeru metti xafaa nag day metti moom tànk ba ngir ñàkk sol dàll xafiya xafan ak wajiya wajan naqab nag mooy tànk bi def ay góob ci xotti ko ci ah, min naqabin wa moom itam mooy amul benn légat asarul jorxi min baadi ma